am naa su korte gi laa la bëgg a wan. naa su korte lu am jom xoolal ma romb bi xoolal ma lii. yow yaa ngi wër modèle man wëruma modèle de. ah bon damaa wóolu samay tailleur Pape Diop sëñ Saliou Pérès <laughs> ay waay ñooñu ciseaux damm seen loxo ñooñu dañ lay ñëw toq tey baa robb nag terrain ba di jub maa wóolu sëñ Saliou sax. ah léegi dangay dem jël sa yoon bàyyi ma fii yow kan nga daan dem di ñawlu te doo wax. waaw. yow jantal booy moomu sax ma jantal booy mi ma mayoon kooku dóorewul faywul ndax 10 000 francs la ma may te 10 000 francs ñaw la ma. 10 000 waaw <laughs> kooku mayu la 10 wax ma leneen. 10 000 la ma te li si des damaa bëgg a raasaatu moo tali. yow de yaa gën a xam ne 10 000 francs mënul dara li nga yor waxoo ma ko te danga may nëbb léegi. nëbb <laughs> ay waay seytaane waxul dëgg yow naa nëbb yow doom day. danga may nëbb tey ñaanu ma ko yàlla ñaanu ma ko yàlla man des damay mottali raasaatu. nga yaakaar ne li nga nekkee yëpp xaw ma ko. lan laa nekkee. su ma paa nga teg bët di leen raasaatu ci pet yow ñëpp ma waroon a def loolu ba mu sëf yow fi ma jaar ak yow yépp ñëpp bàyyi la ma ñëw fat la sama biir néeg di dégg lu nekk tey lii nga may fayee waaye nag waxoon nañ ma ko nii rek nga mën a mel ndax foo dem di nga dikkaat waaye nag lenn laa la bëgg a wax gis nga kër gi. dangay mun yem nga nekk fi mënoo yem nga jël say bagage raasaale li nga fi am yépp génn kër gi ca biti abal ma ah yaa mun a bañ a wax dëgg yow mbenn may ma yow yan paa laay yow ma dinaa xool yow ni nga mel ak paa yi ak paa yi ngi lay jariñ ma lay suuf di la raasaatu xolal waxal beneen néeg gis nga néeg bi génn ma fi centimètre yi nga fii laa ko umee fii laa ko wooree te fii laay koritee di sama tay baas ak marinière yi fii laa koy diroo gis nga paa yi tolluñu ma fii te soxlawu ma leen. loolu day fekk bu neex ma ndax yow yaa jóge seen kër ñoo fekk suma sama biir néeg fii lu ma neex rek moo fi am am lu ma neexul du fi am te lenn laa la bëgg a xamal gis nga ñii fii laa leen teg sama dugg loxo xam nga kon yow dangaa tuuti pour nga pour nga génne ma si ñii lenn nag laa la mun a wax nga yem yeggale fi sa koor yemoo nga jël sa ñetti bagage yi nga fi am sa ñetti sa sa toq valise boobu nga tàllal ba caaka njaay foofu laa am lu ma yema yow. yow da ngay gént mbeen yow ci gént nga toll di ku bëgg fu mu fu mu fanaan ak ku ko wéttali tëjal buntu du leen bëri boo ma génnee gis nga paa yi ngay wax <laughs> soxlaw ma leen waxal leneen. xanaa tey nga leen soxlaw attanuñu paa yi xanaa tey nga leen soxlaw waaw ba nga leen raasaatoo ba mu ñu jeex ba mu jeex ñoom nga mun a wax taxaw fii naa soxla woo leen. xanaa yoo jeexal nga xanaa yoo jeexal nga. ndax yow sa ñaari iPhone yaa ngi nii wàcc xanaa yow bàyyi kon jeexal nañ la ah, sama ñaari iPhone yi nga teg bët waaw dootoo ko defati ndax man fu may tibbee yow mënoo faa tibbee man ak yow du geer damaa bëgg na nga yem te nga dama laa ko jënd produit ndax bàyyi jeexal nañ la yow mais nii lan la nii yow nga mel ne ku ma soxore sa rob rek saa yow ku soxor nga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 59 75. sax moom daa mel ne wax na dëgg de dama dul xarit joruma àndal xanaa ma jël paay rek wàcc leen tuuti wàññi 4 bi bu ma leen wàññee bu mu foog ne banaa paay bu mu foog ne banaa paay ma accéléré paay jóg yokk finition. ten bay naa bàyyi mais man génn maa ñoom mais dégg nga dégg naa seen wax ci yaa yaa sa xarit bi te loolu du yoon parce que yéen ñaar yéen a bokk néeg bi war ngeen a def lenn lu dul di xuloo waaw surtout weeru koor bi nag te yow laay waxal nag damaa bëgg nga bàyyi lépp loo xam si nii rek yaa ko jàppoon nga bàyyi ko parce que ndayaa mi ma gis nii amul benn problème te yow xam naa ne amoo problème xëy na saytaane leen jaxase rek dégg te ma sañoon nag ah ngeen jàmm boo defee kër gi mën a jàmm. yow Paa Ndiaye lu tax maandu moom su sa yoon ci xulloo jàmbur yaa fi gis ko fi xulloo. xanaa man nekk mu borom kër yemal say problème laa la wax. man la xanaa nekk mu borom kër. léegi nga gisee ñu xulloo war ma leen mën a jubóol ah loolu mooy sama rôle loolu daal laa lay wax te moom bu ñëwee dinaa ci waxtaan ak moom. Eh, eh, surtout ma daal lay jiiñ dëmm ngay soccoo yéelu yéelu liir xooba la la loola bi wax noonu ah ok lala xam nga lan nga naan lan ngay defar sa kol gi mel ni mbàjj li ma doon li ah? ah? amul li nga wax li nga wax yépp xam naa kon yow li ma la doon jiiñ am kon yow da doxaan mbeen man mi yow kay yow mbeen kii moo lay doxaan mesuré say parole de. lan laay yow kii xuloo xaritam ma leen defar nga dama koy doxal. ban xarit la ah? kii la xuloo xaritam. waaw moom Ngaya. waxuloo dëgg da nga koy incarné. kan laa a ne kii. waaw kii di sama doom. sa doom yaa mën a eh, eh, bul tax ma saaga nga naan sama doom. saaga ma waaw yow. allo saaga ma yow Ndiaye mun ci kër gi. ah bëgg looy kër yi ci xale yu jigéen yi di mbaraan di dogaan rek doo indi si jabar te bàyyi booy baax na. Ndiaye bàyyil sa doxalin boo fekkee rek di cerax dara. baax na yow nag ñax après dinañ waxtaan eh. bu dee kii ngay nga ne la. moom xam nga après dinañ waxtaan kan ngay waxal man ngay waxal wala eh, koy a naan day jéem a ah, ah. fekk ñaari nit di wax xamoo lu ñuy wax nga ne ay doxaanante. doxaanu la. dogaanul eh eh wax rek ndax dogaan na la wala dogaanul eh eh wa taxaw nga wax ak man da lay dogaan bàyyi ma da yoon nag ma laa laaj mais mais profusion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yi yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh. oh.